euh, di Babacar saw bi nga xam mom mo représenté woon ICS at euh, même dégg naa indien bi tam ci la bokone alors euh, pour ñu waxtaan ci li nga xamantene ne si mooy wàllu pas indemnisation la ko tuddee alors mais la joggé ci waxtaan moy mooy jubóowuñu ndax wa ICS dañu proposer vraiment ce sont des sommes dérisoires té ñu japp ni qui parle des ressources naturelles li nga xamantene ne si moom la code minier bi wax japp na ni donc su fekkee waxtaan dafa war am on devait vraiment ñu jéem am ay protocole d'accord loolu la village villageois yi bëgg pour que li nga xam ne moom la ñu bëgg a jël muy seen i suuf te ñëpp xam ne du garab yi dong suuf si du hectare bi dong mais amna na ay meññeef fi nekk ci biir ñu waroon a waxtaan loolu ba nga xamante si euh, la RSE dinañ ko mën a pour que bu ñu jógee ci waxtaan boobu waa Tobène ñi nga xam ñoom ñoo ñu impacté yi ñu mun am euh, vraiment ndàmpaay bu mucc ayib euh, mais la ci jógee daal mooy jàpp naa ni daal ñoom ñu ngi doon laaj hectare daal vingt millions mais waa ICS e nee nañ duñ ko def tey duñ ko def ëllëg.

ndaxte li ñu koy laaj daanaka bariwul mais moom nee moom fa mu taxaw taxaw donc wa askan tam taxaw fi taxaw kon donc ñu attirer attention président de la République pour que mu intervenir ci problème bi parce que sinon jàpp naa li fi xewoon keroog dinañ fi gis leen lu ko lu ko gën a grave parce que d'après euh, li ñu am ci ay informations le préfet a brandi des menaces te jàpp naa ne loolu du lu baax. te je pense que jàkkaarloo bu amee am naa yaakaar ni tamit vraiment day métti rek loolu daal la ñu a wax fii ci Tobène di wax ni foofu la euh, waxtaan bi toll waa euh, waa village waayu Tobène ak commune bi yëpp 89 villages yëpp kenn d'accordul ci li ICS bu def waa ICS tam ñu taxaw fi ñu taxaw kon donc su ko defee waxtaan bi euh, mujjut a vraiment antu donc la lutte continue donc ñuy wax ne ñun waa àll ñu bokk ñu ci gannaaw bi ànd ak ñoom ba lépp loo xam ne ñu am ko incha allah rabbi